ñeen ca duma sunu borom nag mu ni laa taxsabuhu charran lakum yéen ñim dal seen kaw bu leen jàpp ne musiba la ñel leen histoire bi ci kan la dal ci famille Abu Bakar radiallahu anhu ak famille yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu leen jàpp ne musiba la ñel leen bal huwa xayrun lakum waaye yiw la ñel leen na am tax na yàlla wàcce ci ay aaya yu ñuy jàng ba ila yawmi diin laabal ci sunu yaay Aïcha radiallahu anha ba boroom xam-xam yi dañuy wax bokk na ci ku mel ne Malik képp ku duural kenn ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku mel noonu da ngay gis ni wares na laa duma duma yu metti ci yaa ngi ànd ak merum yàlla amma ku duuralati Aïcha ku mel noonu yéeféer la benn sikk sàkk amul ci moom yéeféer la ndax kooku alquran la weddi mi ngi noonu loolee kon yiw la bokk na it luñ ci junjoon démb mbokk mooy jullit lu ko mën a dal ci natt ak natt ba lu mu métti métti day ñaan rek yàlla def ko muy yiw yonent bi alayhi salaam mu ni jullit léppam yiw la ca moom rek moo ko am ca suñ mag ñi daanañu wax naan xéewal dana jóge ci njoñ mi ngi noonu mën nañ laa njoñ yóbbu prison ndekete sa xéewal ngay fekki foofu ca it ñun ñi yàlla nattu ñuy jaxasoo ak ñoom gis nañ ci ñu bari ñoo xam ne dañuy sant yàlla ba leen yàlla indee prison am na ñoo xam ne fa la ñu mën a jànge alquran am na ñoo xam ne fa la diina leere ci ñoom am nañu fa am ay relation yu leen ubbil xéewalu àdduna ala kulli xaal yow jullit lu la mën a dal ñaanal yàlla rek def ku yiw loolu la sunu borom wax ci loolu borom bi nag ni li kulli imri'in minhum maktasaba min al ism gis nga ñii nga xam ne nii ñoo doon tasaare mbir mi ku nekk ci ñoom dana ko ñeel lam am ci bàkkaar bi mbokk fitnaa ngi noonu tey masalan benn waaye dégg na histoire bi ah loolu day doy na waar daal di cay yéemu daal di cay wax mais weddiwu ko mais bànneexu na ca kooku am na wàllam ci bàkkaar bi bokk na ki nga xam ne ba mu ko déggee dem na jottali ko keneen kookee moo ko gën a garaaw bàkkaar bokk na ki nga xam ne ba mu ko déggee jottali na ko fukki nit kooku moo gën a garaaw bàkkaar bokk na koo xam ne ba mu ba mu ko déggee njàmmaas na ci ay waxam te it mbokk bari ni histoire yi ngeen dégg noonu lay demee kaka njëkk a nettali nam ko nettalee bu demee ba wër réew mi ba dellu soit ci moom moom day waaw ndax lu ne yokk nañ ko ci kon sunu borom mu ni ku nekk dana ko ñeel lam am ci bàkkaar bi amma nag ko sos mbir ma wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim waa ja nga xam ne nag moo yëkkati histoire ba sos ko muy abdullah ibnu obay kooku mbugal mu tar dana ko ñeel ca mbokk jullit it loolu ngeen di yàgg a gis benn histoire day wërum réew kenn xamul fan la jóge kenn xamul fu mu jóge wallahu subhanahu wa taala alam ala kulli xaal xatta temps yi passé ñi ngi wane ne sëriñ tel nee na buntu kër guñe nañ fa tuur paanu ndox am na ay mbokk yu jokkoo ak sëriñ boobu mu ne loolu ma musu ko wax loolu mbokk day am ci ay xabaar moom la waa Sénégal tuddee rajo Kankan mais nag toujours am na fu mu cosaanoo am na koo xam ne moo ko yëkkati wax ko su ko defee sunu borom mu ne kooku ñeel na ko mbugal mu tar borom bi dellu soit ci jullit ñi ci teggin yoo xam ne nga la waay commencé ci ñun ñi nañ ci jéem a teggini ko ba baa ñuy dajeeg sunu borom. borom bi mu ne lawla is sami'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim xayra anu lu teewoon jullit ñi biñ ko déggee jullit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi te nga la way atey lislaamin noonu la góor ak jigéen la yóbbaale rawatina bu dee la jëm ci wàllu wax yu mel nii jigéen ñee ko gën a mën a tasaare seen biir anu lu teewoon jullit ñi jortu lu baax ci seen bopp lu tax sunu borom dani julit ñi benn lañu ixwa lañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne julit ñi benn jëmm lañu ka masalil jasad kon soo déggee ñu waxal lu ñaaw sa mbokku julit loolu ci yow la dal mi ngi noonu ba nga déggee ñu waxal ne sa mbokku julit def na loo xam ne yow bu doon yow doo ko def am na lu tey woon ñu jort ci ñoom lu rafet looloo tax am na benn sahabi bu mag di ay abi ayub al ansari kon nga xam ne yonent bi bi mu demee madina këram la daloon nee na dafa ñëw ci kër gi fekk fa ummu ayub mu ne ko waaye yow dégg nga li ñuy wax mu ne ko dégg naa ko kay ci Aïcha waaw dégg naa ko est-ce que bu doon yow da nga ko def ummu ayuba ne ko ah déedéet mu ne ko waaw est-ce que loolu jàpp nga ku mel ni bu doon mën a danaa ko def mu ne ko ah déedéet loolu kay bu ñu ma ko nettaloon ci yow duma ko gëm mu ne ko nag Aïcha la gën fuuf jëkkëram yonent bi moom a gën fuuf kon la ngay jortu lu rafet ci yow jortu ko ci ñoom mooy kon dëggal na aaya bi loo tax su ma toogee dégg liir ci journal ñu ne sayal xaw ma ban jour ab ibaadoo ko tas dañuy fen wallahi dañuy fen nañu wax ne ku fi indi ab nuuraay moo ko tas néegam wax ji dëgg la donte ne ñoom pour jaay seen journal lu nu mën nañ ko bind waaye wallahi mbokk julit ibaadu du dem di tas saylu ak fecc abadan mi ngi noonu waxuñu dëgg am na lu tee woon biñ ko déggee ñu jortu lu rafet ci seen biir waaye ñu ne it haza ifkum mubin ñu teg cee na déedéet lii fen la woo xam ne bu leer la ndax fen ñaar la am na fen woo xam ne mën na indi dut mais fen bi dafa leer mbokk julit mas ngeen gis ku dem ànd ak jabari jaambur njaaloog moom ba pare teg ko sa giléem jiital ko indil ko ba ci jëkkëram loolu ndax dana ma saam abadan soo àndoon ak jabari jaambur njaaloog moom kay day jaar koñ bële nga jaar koñ bële mais du ngeen daje abadan mais safwaan ci boppam moo jël Aïcha ci giléem gi ànd ak moom ànd ak moom ba ci yonent bi fi ñu campagne ñu daal di teg ci ñépp gis leen bu doon ko ne kay lu dul jaadoo dox na seen diggante ba mu ko fekkee ci àll ba buñ defee li ñuy def ba pare day bàyyi rek Aïcha ak tànkam dem moom mu jaar ak biiram moom feneen gis ngeen kon am lu teewoon ñu ne haza ifkum mubin loolu dalay won yow julit xabaar bu ñu la mën a dikkal bala nga koo gëm wala nga koy commenté xool ko analyser ko ci biir ak ci bitti bari na ndeysaan ci jullit ñi dañuy dégg ci rajo bi rek commencé commenté coow coow coow wala lire ci ab journal rek commencé commenté wax wax wax wax mais luñ la mën a dikkal ci xabaar moom la sunu borom ne fa tabayyanu day leen leerlu su ko defee bu doonte ne càmbarga nañ mbir mi xool ko dañuy xam ne lii tegewul fenn te wallahi bari na lu nit ñi commentaire ci rajo beeg télé bi yow boo toogee sa ko seetantal ko da nga xam ne lii du dëgg abadan du dëgg gis ngeen su ko defee anul teew ñu ne haza ifkun mubin beneen mbir bi sunu borom mu ne law la jaa'u alayhi bi arbati shuhada anul teewoon ñu indi ñeenti seede benn waaye day dem tës na onze billahi min sharri tës gis ngeen ñëw ne nangam nangam wax sama bàyyi daf ma violé sama nijaay dafa nangam ca wallahi mbokk loolu la ñuy wax seen rajo yi am na ci boo xam ne nii ci ni ma koy dégloo nii ci fajar affaire yi kooku sax du woon émission boobu waaye bàyyam la taxaw di weer ci ci ci ci ci rajo bi mi ngi noonu sama bàyyi la dafa ma woo kër ga naka ma ñëw mu teg ma ci kaw lal bi naan ma yow nangam mais koo xam ne li ngay wax ñi la xam ñëpp xàmmee nañ sa ba kooku ndax dóoraluñ sa bàyyi yàq nga sa bay yàq sa bopp ci yëgoo ko su ko defee sunu borom mu ne ñiy wax wàllu njaaloo lawla jaa'u alayhi bi arbati shuhada andoona teew ñu indi ñeenti seede wallahi mbokk jullit heure bu nit ñëwee wax waxi njaaloo ci jullit ci indiwul ñeenti seede wax jooju nga teg ci sa làmmiñ dëggal ko wala commenté ko yaa ngi def bakkaar bu rëy ci sa kanamu borom jalla wa ala lawla jaa'u alayhi bi arbaati shuhada am lu teew ñu indi ñeenti seede sunu borom ne fa is lam yaatu bi shuhada fa ulaaka inda allahi humul kazibuun bu ñu indiwul seede yi ca yàlla ñooy fenkat yi wax naa leen ko démb ñetti jullit daje nañu doon dugg ci benn néeg fekk fa ñaar ñuy njaaloo amuñu ku leen ñeenteel buñ demee génn wax ji wax nañ dëgg ci zahir waaye ci yàlla ay fenkat lañu fa ulaayka inda allahi humul kaazibun te buñ demee ci attekat bi wax ko ko ñoom ñetti ñépp lay duma lu tax fa ulaayka inda allahi humul kaazibun ndax suñu borom dana ak njaaloo bala ñu koo feeñal na ko ñeenti ci ay jullit seede kon lu tee ñu indi ñeenti seede indiwuñ ko ñoom ñooy fenkat yi borom bi subhanahu wa taala nag daa di ne ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفدتم فيه عذاب عظيم budul woon ngëneelu yàlla ci yéen saxaaba yi ci àdduna ak alaxira bokk julit yàlla moo seede ne ay ngëneelam wàcc na ko ci saxaaba yi àdduna ak alaxira moo gaa yi nan la chia yu bon yu parparlo yooyu bëgg ñoo gëm ne yeneen ci bi fi jógee saxaaba yëpp dañoo murtat ba mu des juróom benn ñu yées ci nit ñi mooy abubakar ak omar ak usmaan ak kaza wa kaza wallahi wax jooju delluwul lu dul ci ñoom ñoom rek ñooy ñu yées ñoom rek ñooy ñu bon ay sunu borom moo seedeel ni fadlullahi wa rahmatuhu ala sahaba fi dunya wal axira ñu ngi noonu bu dul woon gëneelu yàlla gi ma dogal ne danaa leen ko jox àdduna ak alaxira kon kër yeneen ci bi ngeen tilimal wax ci ay wax doon naa leen ci mbugal la nga xam ne mooy gën jaa màgg ci mbugal lii mbokk mooy bind bi nga xam ni foofu la ñu yemoon démb ñu ngi profito yi te di ñaanal mbokk jullit bi nga xamee ne nii bi mu déggee sunu kaset bi di am problème ma nga ci New York mais comme day suivre tafsir bi ci internet bi moo ñu yónnee rajo bu bees bi yal na yàlla barkeel ko barkeel ñu barkeel bépp jullit
تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم
سنبرم جل وعلا مني إذ تلقونه بألسنتكم بنين كي جق جق لن تيكسن لمن يأ wa taquluuna bi afwaahikum ngeen di wax ci seen gémmiñ yi maa laysa lakum bihi ilm loo xam ne ñeelu leen ca benn xam-xam wa taxsabuunahu hayyina ngeen jàpp ne loolu lu lompañ la lu ñàkk solo la wa huwa inda allahi azim doonte ne loolu lu màgg la ca yàlla walawla is samictumuuhu ma yéen jullit ñi lu teewoon bi ngeen déggee wax ji qultum maa yakunu lana an natakallama bi haada ngeen ne ñun de ñeeluñu ñuy wax ci ci mbir mi subhaanaka haada buhtaanun azim sell ñeel na la yàlla lii day nekk na loo xam ne nii aw sos la boo xam ne bu màgg la yaizukum allahu an taudu li mislihi abada yéen jullit ñi yàllaa ngi leen di xupp ci ngeen di dellu ci lu mel nii ba faw in kuntum muminin neen nekk ngeen ñoo xam ne da ngeen a gëm wa yubayinu allahu lakum al ayat yàlla day mi ngi leeral ñeel leen aaya yi wallahu alimun hakim seen borom yàlla mooy aji xam aji xereñe inna allazina yuhibbuna an tashia alfahishatu fi allazina amanu ñi nga xam ne dañoo bëgg muy tasaaroo ñaawteef ya ci ñi gëm day lahum azabun alimun fi dunya wal axira dana leen ñeel mbugal mu tar ci àdduna ak alaxira wallahu yaalamu wa antum la taalamuun yàllaa xam ni muy mbugale ay jaamam yéen xamu leen ko walawla fadlullahi alaykum wa rahmatu budul woon a ngëneelu yàlla ci yéen ak yërmande mit wa anna allaha raufun rahim te sa borom yàlla koy ñeewanta la koy yërëm ay jaamam la mi ngi noonu mbokk sunu borom mu ne budul woon ak ne ay ngëneelam da ko dogaloon ca sahaaba yi doon na leen mbugal mbugal mu tar bi ñuy jox leen te wax jooje di wax ci seen gémmiñ ya lu ñu amul benn xam-xam kii dégg na ko mu neex mu nettali keneen kii dégg mu neex mu nettali keneen ca amuñu ci loolee benn xam-xam yéen a ngi dégg sunu borom subhanahu wa taala ba muy nettali it qissa yusufa alayhi salaam gis nañu ne ba muy jéem a sàkku soxna yusufa soxna say sàkku yusufa mbir ba wër na dëkk ba ba dellu siwaat ca ndaw sa te mooy doomu aadama dafa bëgg tasaare yu demee noonu ku dégg rek nettali sa morom liir nga li nga liir ci journal bi dégg nañu wax ci rajo bi sunu borom mu ne ngeen jàpp ne loolu lu woyef la lu woyef la du dara dégg naa ko rek wax ko ñu neexale ci waxtaanu grand place bi eh ñu paase ci leneen or ko sunu borom mu ne lu màgg la ci yàlla mbokk yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam nee na nit dana wax benn wax wax bi jàppul ne sax am na dara loo xam ne lu garaaw la lu mu wax wax boobu dana ko tàbbal mu beelu ci biir sawara juróom ñaar fukki at yoo xam ne dana ko xawee ko ci biir sawara ci benn kàddu bi mu wax boo xam ne jàppul sax ni wax na lu am solo comme mu ne it ne nit dana wax benn wax ca wax ji jàppul sax ne lu am solo la waaye yàlla gërëm ko ci bindal ko ci yërmandeem ba faw loolu mbokk lum ñuy jàngal mooy danger làmmiñ wares na ko di jéem a làq fu gën a sori fa ñuy làq sunu pistolet yi ak sunu revolver bu dee ne dañ koo am moo di ne ni nim mën a indee njariñ la mën a indee lor looloo tax ba surtout nit ku baax nit ku baax téye say tànk ba doo dem fu bon mën nam yàlla yombal la ko fexe ba doo njaaloo fexe ba doo sàcc fexe ba doo nangam mais bokk na li gën a jafee téye ci doomu aadama mooy làmmiñam xatta abubakarin sadiq daana génne làmmiñam ba daan ko anta lazi awradani l mawarib yow yaa ma tàbbal fu ma tàbbi mi ngi noonu loolee kon ñu moytu ko waykat yi dañ doon wax ne moytu ko ni ngay moytoo jaan bu mu la matt mukk ndax jaan la loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax gis nga jullit ñi njaaloo wuñ sàcc ñu defuñu dara mais wax diñ doon wax rek borom bi mu ne daa am lu ko jiitu na kon musiba dal leen loolu it mbokk muy wane ne jaamu yàlla ndekete dalay aar ci musiba yi nar a ñëw sa kanam yonent yàlla yunus alayhi salaam ba ko jën bi wanne mu nekk ci biir géej ga borom bi dane lawla annahu kaane min al musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yubaasuun daa fekkoon ne mu bokkoon ci gaa yu baax yi daan ma sabbaal benn erreur bi toppiwuma ko ko nekkoon danaa ko bàyyi foofu loolu gis nga sahabatul kiram seen jëf yu baax yi ñu jëfoon loolu moo leen sauvé borom bi nag subhanahu wa taala mu ne lu teewoon yéen jullit ñi bi ngeen ko déggee ngeen ne a ñun de yellul wax ji ñu koy siiwal même bu doon dëgg la ma gaa yi soxna yeneen ba njaaloo même bu doon yaa ci teg sa bët ndax loolu war nga ko nettali déedéet lii day yelul ñuy wax wax ji mel nii gannaaw ba ngeen ne yàlla subhaanaka sell ñeel na la yàlla sa yonent bi nga jël muy misaalu àdduna bi yëpp doo bàyyi soxna muy njaaloo waaw gaa yi yàlla bu bàyyi yoon soxna yonent bi bu njaaloo ndax keneen mën naa tere keneen njaaloo abadan keneen mënul tere keneen njaaloo looloo tax sunu borom ne woon soxna yonent bi lastunna ka ahadin min an nisa yéen yëmuleen ak yeneen jigéen ñi ndax yéen yéenee exemple umma bi sunu borom mu ne soxna yonent bi ummahatuhum ñooy yooyu yaayu jurit ñi kon sell ñenn yàlla mu bàyyi soxna yonent bii di njaaloo loolu catastrophe mënul passé loolu looloo tax ñu ne subhanaka hadha buxtaanun azim borom bi nag ne def ngeen lu garaaw waaye yaizukum allah an taudu li mislihi abada maa ngi leen di ñaan maa ngi leen di ñaax di leen xóob ngeen bañ a dellu ci lii bu dee gëm ngeen xaw ma kan mooy mën a jël kaset bi yóbbul ko waa tës ak ñay animé tës ba ñu xam ne li ñuy def lu grave la musiba la dañ ko war a bàyyi sunu borom yàlla mu ne galawaay jurit bu yàlla masa nattu mu wax lu demee nii na ko tuub bañ a dellu ci loolu abadan su dee ne gëm na yàlla subhanahu wa taala ni ngi ñaan yàlla lépp luñ ca mas a wax wala ñu mas ko caa jëf yal na yàlla sàmm ñu baal ñu aar ñu ñu bañ caa dellu ba ñu dajeeg moom ndax sunu borom nee na loolu mooy chartu iman in kuntum muminin ah bu leen dellooti ci lu mel ni abadan borom bi subhanahu wa taala nag ne nii laa leen di leerala samay aaya xam leen ne yàlla mooy ki xam lépp te mooy ki xereñe mooy mbokk yàlla mooy xam waaye lii mu ñu wax mooy sagesse suñ bëggee société bi laab nañ bàyyi njaaloo waaye nañ bàyyi duural njaaloo waaye nañ bàyyi siwal la bon ci biir société bi ndax loolu borom bi loolu la wax mu ne nag ñi nga xam ne ñoom dañoo bëgg jullit ñi yàqu ci jukko yu bon ñi nga xam ne dañoo bëgg a tilimal jullit ñi di tasaare ci ñoom lu bon sunu borom yàlla mënuñu mel nii day da ngay gis ne mbugal mu tar dana leen ñeel àdduna ak alaxira te mbokk loolu bu njëkk mi ngi yemoon ci làmmiñ waaye ñun ñuy dund jamonoy média gis nañu ni bokk na tey lu benn làmmiñ doon yàq da ngay gis ne bu jëkk téeméer junni ci ay nit mën nañoo yàqoo ci benn film film yi lañ daan jëkk di tasaare jële ko Occident ñu jëkk a yàqu ci suñu société bi film yooyu ma leen yàq cinéma yi fi ñu ko jëkk a implanté la ëpp ci jeunes ya fa juddoo dañoo yàqu gars yi ndax gis ngeen Grand Dakar cinéma yi nam ko yàqe ndax yéen ñi xam Pikine xam ngeen fa cinéma Vox nekk fa cinéma Ililal nekk fa cinéma Al Akbar nekk ñooy quartier yi gën a garaaw ci Pikine yéen ñi xam caaro yi est-ce que xam ngeen quartier ba cinéma bi nekk mooy quartier yi gën a bon ci caaro yi cinéma yooyu ñoo ñëwoon di ñu jàngal nu ñuy sàccee nu ñuy defee ay attentat moo ñu doon jàngal ay koboy ay gangster moo ñu jàngal mbon nu ñuy fexe ba nax jigéen ba njaaloog moom nu ñuy fexe ba piège góor ba njaaloog moom cinéma yu bon yooyu ñoo ko doon def nit ñi baax ñépp daan téye seen doom pour ñu bañ a dem cinéma waaye ma ma al asaf ba gaa yi demee ba jekku ba jekku ba jekku dañ daan fekk benn gox ñu samp fa benn cinéma nga xam ne daan jot peut-être un trois à cinq pour cent ci ndawi gox ba léegi nag fexe nañ ba kër gu ne ñu dugal fa cinéma am déet kër gu ne ñu dugal fa cinéma muy télévision film yañ daan jaarale ci cinéma yi ñu jaarale ko léegi ci télévision bi aajowul pass aajowul déplacé cinéma bu njëkk ña fa daan dem ay quinze vingt ans la woon tey nag télévision bi xale bi am trois ans di jàng wax télévision moo ko jàngal nu muy fecce nu muy bàkkoo nu muy waxeli nu muy waxeli de trois ans à quatre-vingt-dix ans léegi ñépp ñooy daje ci cinéma miniaturisé boobu nga xam ne mooy télévision loo xam ne jullit ñépp war nañ ci bàyyi xel musiba mënul passé télévision ci kër ngalawaay bu ngeen amul kàttan mën koo jël sànni ca àll ba maa ngi sant sama borom bi ma boolee ci jaamam yi nga xam ne jël nañ télévision sànni ca àll ba waaye ngalawaay bu dee mënaguloo ko contrôler ko ni ngay contrôler sa téléphone amul kenn ci yéen kuy jël téléphone am bàyyi ci digg kër ga na mag ak ndaw gën a yaa ngi noonu kum neex téléphoneel ndax am na amul da ngeen koy contrôler dee leen ko contrôler lu baax bu amee ngeen woo xale yi ñu seetaan lu baax lu bon lu amee ngeen tëj ko xale yi bañ koo jëfandikoo sunu borom mu ne am na ñoo xam ne seen xalaat bu dégg ba cëg nu ñuy def ba mbon tasaaroo ci biir jullit ñi bàyyi leen xel ci loolu mbokk loolu mooy Occident télévision bi quatre-vingt-dix pour cent liñ ciy liñ ciy def mooy mbalitu Occident la ñun amuñu kattan gérer nos télévision vingt-quatre sur vingt-quatre loolu xam ngeen ko sax li ci am yépp théâtre fecc tëgg caaxaan film lu kenn xamul ay musiba rek loolee sunu borom yàlla subhanahu wa taala wax mu ne bu dul woon a ngëneelu yàlla ci yéen ak yërmandeem doonte ne yàlla mooy ki ñeewante ay jaamam yàlla mooy ki ay yërëm ay jaamam looloo tax heure bu leen bu ñu defee musiba mi ngi leen di woo ci la nga xam ne mooy buntu tuub dellu ci moom mu baal leen yërëm leen jéggal leen yàlla na yàlla baal ñu yërëm ñu ca jéggal ñu
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم
sunu borom jalla wa ala mu ne yaa ayuha alladina amanu ee yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm day laa tattabi'u xutuwaati sheytaan bu leen topp ci jéegoy sheytaane wa man yattabi xutuwaati sheytaan koo xam ne yaa ngi topp jéegoy sheytaane day fa innahu ya'muru bil fahshaa'i wal munkar moom day digle rek ay ñaawteef ak loo xam ne lu ñu sib la walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu donte ne faxsha ma ngay gën a jëm ca bànneex ya muy naan sangara yaag njaaloo yaag yu deme noonu munkar ma ngay gën a jëm ca rey nit yaag histoire yaag lay jur noonu walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu bu dul woon ngëneeli yàlla ci yéen ak yërmandeem day ma zaka minkum min ahadin abada du woon sell ci yéen kenn ku mën a doon kenn walakin allah yuzakki man yasha waaye yàlla mooy sellal ku mu soob ci ay jaamam wallahu samiun alim ci seen borom yàlla mooy dégg di xam lépp wala ya'tali ulil fadli minkum bu mu nekk di waatati ña nga xam ne ñooy boromi ngëneel ci yéen wassaati ak boromi yaatu alal ci yéen an yu'tu ulil qurba ci ñuy jox aji jegañaale ya wal masakina ak ñi nga xam ne ay miskin lañu wal muhajirina fi sabilillah ak ñi nga xam ne dañuy gàddaay ci yoonu yàlla wal yafu nañuy jéggale wal yasfaxu nañuy jéllale ala tuhibbuna an yaghfira allahu lakum xanaa bëggu leen ci yàlla subhanahu wa taala baal leen seen i bakkaar wallahu ghafurur rahim te sa borom yàlla mooy baale ay bakkaar te mooy yërëm ay jaamam mi ngi noonu mbokk sunu borom dani ay yéen julit ñi bu leen topp jéegoy sheytaan lan mooy jéegoy sheytaan naam bokk na ci thème bi ñuy waxe mooy dóoral ak njaaloo tasaare ko loolu bu leen topp jéegoy sheytaane waaye mbokk jéegoy sheytaan moom mooy lépp lu yàlla xaraamal rek sheytaane dina ko taaralal nit ñi wa tax borom bi ni innama alxamru wal maysiru wala ansaab wala anzaab mi ngi noonu loolu lépp mu ne rijisun min amali cheytaan jëfi cheytaane la bu leen topp jéegooy cheytaan képp ko topp jéegooy cheytaan da koy digal ñaawteef taaralal ko ko teete ko ca ba tàbbal ko ca ca loolu mooy mi ngi noonu naxanteeg yow borom xam-xam yi dañuy wax ne lu ci bari ci ay njaaloo mi ngi jóge ci xool comme niñ ko nar a jànge ci kanam ba nga xoolee xool bi bëgg xool ba moo jur wax wax baa jur rendez-vous rendez-vous baa jur waliyaasu billah su ko defee seytaan day naxanteeg yow naxanteeg yow ba tàbbal la ci musiba kon bu ko jéem a topp mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ne gis nga budul woon ngëneelu yàlla ci yéen ak yërmandeem kenn ci yéen du woon sell abadan yàlla nag mooy sellal ku ko soob ci ay jaamam na am mbokk julit gis nga seytaane bi ñuy defar sunu baay aadama mi ngi toog di ko seetaan kookee li fi jaar ci ay mbindaafoon kenn xamul ni ñu toll yeneen yépp ci kanamam lañ jaar firawna ak numruus ak waa aad ak waa samun yépp ci kanamam lañ jaar yow nga defe ne mën nga koo të mënoo koo të yàlla rek la mën a musal ci moom am déet sunu borom mu ne bu dul woon ak sàmmoog yàlla yërmande yàlla kenn ci yéen du woon sel ku nekk seytaana mën na ko tàbbal loola tax yonent bi gën a tedd ci jaamu yàlla yi daana wax naan allahuma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha yàlla sama bakkan bi yàlla na nga ko jox ak ragal yàllaam yàlla na nga ko sellal yaa gën ci ñu koy sellal yaay féeteem yaay ka nga xam ne yaa koy aar loolee mbokk dañuy gis ne day wone ne kon julit ñaari mbir am na benn heure boo gisee sa mbokk julit mi ngi ci tarxiis da ngay xam ni seytaane ko réeral yàllaa ko defalul tawfiq ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu jubbanti ko waaye it santal yàlla yàlla mi la boolewul ci njaalookat yi boolewul ci naan ko sàngara yi boolewul ci agresseurs yi loolu nit da nga ciy sant sa borom subhanahu wa taala da nga ciy sant sa borom subhanahu wa taala ñu ngay fàttali sama benn mbokk bamba ñaan ñu bëri ci jàkka ji xam nañ ko benn waay daa fàtte portable bu cher ci taxeem téléphoné ko mu ne ko waaw portable baa ngi nii fan laa lay fekk mu ne ko waaw fekk ma fii ci église bi waa ji dem ba ci église bi mu jox ko portable bi waa ji bi muy ñëw mi ngi ànd ak benn xaritam après xarit bi ne bamba ñaan taxi bi yow mi war ngaa sant yàlla kat mu ne ko déet xanaa sa waa ji wax mu sant yàlla mu ne ko déedéet yow mi yaa war a sant yàlla portable bi mel nii ku koy for di ko delloo war ngaa sant yàlla de gis ngeen ca wax ju rëy la ko wax te mooy ñu bari ci doomu aadama yi bu ñu faree portable la ñu ne alhamdulilah rabbil alamin mi ngi noonu mooy am naa xiiwal mi ngi loolu nag kon bu la yàlla boolee ci ñi nga xam ne dañuy masalan for portable def ay jéego kër këri ba delloo ko boromam da ngay xam ne war ngaa sant yàlla su la yàlla mayee nga gis say moroom di kër këri ci night club bi di yàq seen xaalis war ngaa sant yàlla bu la wàll yàlla may nga dajeeg benn waay ndigg laa nga fees dell loxo yaa nga fees dell ak gàllaaj war ngaa sant yàlla mooy yàlla mi nu musal ci musiba yi yépp war nga cee sant yàlla moo tax sunu borom mu ne bu dul woon ak sellaloog yàlla amul kenn ci yéen koo xam ne nii dafay doon koo xam ne ku texe la sunu borom yàlla nag mu ne mooy dégg mooy xam loolu muy wane ne kon dañ koo war a ñaan mu déggal ñu xamal ñu sellal ñu borom bi it noonu mu ne moom rek mooy ki xam bokk na xissa bi lu rëy lu ci jullit ñu war a jànge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi campé benn place di déplacé wu soxnaam si mu àndaloon xam ngeen su ne Aïcha dafa dem doon faj aajoom far benn caqam wadd fa dem na di ko seet nekkate gaa yi dem nañu yonent bi alayhi salaam dem na xamul Aïcha mi ngi ci biir gileem dem ne ko ci gaa yi yonent bi xam na kumpaam xamul kumpa xam ngeen xamul kumpa de bañ demee ba fañu toog la ñuy doog a gis ne nekkate Aïcha nekku ci ñaareel bi histoire bi bi mu amee tasaaroo ba yonent bi woo Ali ibn Abi Talib woo ki nga xam ne mooy Barira woo Usama bun Zayd ñoom ñëpp di waxtaan ak ñoom ci mbir mi lu ngeen xam ci mbir mi yonent bi na xamoon na kumpa xamuloon kumpa keroog bi muy ñëw néeg Abu Bakar fekk fa Aïcha nan ko Aïcha mbir mi ñuy wax bu dee yaa ko def ak defoo ko kaza wa kaza comme ñi ne xamul kumpa ba bàyyi yàlla wàcce ci moom aaya alquran da ko leeralal mbir mi ca la ko yonent bi doo ko xam loolu it mbokk jurit buñ na laa ne sëñ diw mooy xam lay xew arachak lay xew nangam ak dugg fii génn fii ak moom àdduna bi yépp mi ngi mel ne plate ci kanamam ak yooyu suñuy léeb la rek waaye mbokk doomu aadama bu ñu indi woon ci jàkka ji mënul xam li xew ci police bi tant que waxuñu ko ko imma doomu aadama ne moom téléphone ko wax ko ko xabaar ko wala jinne wax ko ko waaye kumpa kenn xam ko kudul borom bi subhanahu wa taala nañ bàyyi xel ci loolu yàlla rek mooy ki xam mooy ki dégg lépp histoire bi bi mu amee gis nañu ne Abu Bakar li sunu borom ne wala yaatal ay wala yaxlif ba mu waatati Abu Bakar dafa dégg ñu ne Mistah bokkoon na ci ñu doon siiwal histoire bi Mistah doomu bàjjanam la woon Abu Bakar yoroon ko di ko dimbali fu bëree bëri Abu Bakar na Mistah ci wax ji la bokk waat naa ci yàlla ne sama dërëm dootu ko lekkati sun borom nag daal di ne ba mu waatati borom yi ngëneel yi ci yéen ulul fadl bokk na lu umma bi dëppoo lu dul siyaayaat ña nga xam ne xamuñu seen diine ki gën ci xeet bi gannaaw yeneen taba mooy abubakarin saddiq ki gën ci xeet bi gannaaw yeneen ci yàlla bi mooy abubakarin saddiq gannaaw ba omar gannaaw ba usman gannaaw ba ali lii nañ ko gëm mbokk julit mooy ulul fadl minkum borom mi nga nilu ci yéen wasa ak yàlla yaatal seen wërsëg bu ñu waatati ne dootuñu jox seen jegeñaale wala ñi nga xam ne dañu gàddaay fi fi sabilillah ngallaawaay nañ jéggale nañuy jéllale xanaa bëggu leen yàlla baal leen bi loolu amee Aboubacar ne aha kay bëgg naa yàlla baal ma kaffaare ngiñ bi mu waxoon ne lu mu daan defal mis sax dana ko doble aaye boobu it ñu dégg ci ñaar mbokk sa jegeñaale soo yégee ne dafa ñàkk war nga koo dimbali ci sa alal même bu la seytaana mënoon ba nga waat ne dootoo ko def sax suñu borom mu ne kaffaaral nga def nga def ko dimbali ko ñaareel ba it heure boo meree ba waat ne dootoo def lu baax ngal la way kaffaaral sa ngiñ te defaat lu baax loole na ngeen loolu di bind yoo xam ne dañ ko war a jàng borom mu ne wala tajalu llaha urdatan li aymanikum bu leen def yàlla mu nekk loo xam ne da leen di tee def lu baax waat ne dootuma def lu baax pour ëllëg si biir xëy na sax da nga jàpp lu baax la waaye nga ne comme waatoon naa ko dama ko def déedéet barab bi mu ne kafaaral nga def la nga xam ne mooy lu baax mbokk lii mooy la nga xam ne moom mooy en bind bi sunu borom joxe ca ka nga xam ne mooy abubakarin saddiq mi ngi noonu
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون
سبحانه سبحانه وتعالى مني إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات نيغا خامني نيوي ساني اي ساني دورالوك نجالو المحصنات جيجين ني فغونيا alxaafilaat ña sàggane beneen góor bu dul seen jëkkër ba leen dagan almuminaat ñoo ñi nga xam ne dañoo gëm lu'inu fi dunya wal axira ña leen di dóoral day rëbbees na leen àdduna ak alaxira wa lahum azabun azim ca dana leen ñeel mbugal mu màgg yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bis ba nga xam ne dana seede ci seen kaw seen làmmiñ ya seen loxo ya seen tànk ya bi ma kaanu yaamaluun ca lañ nekkoon di ko jëf yawma idin yuwaffihim allahu diinahum alxaq keroog day la leen yàlla di matalal seen payub dëgg ba wa yaalamuuna anna allaha huwa alxaqu almubin keroog it la ñuy xam ne ndekete yàlla mooy dëgg gu wér ga alxabisaatu lilxabisin lépp lu sobewu day dana ñeel la sobewu am ñu ko firee alxabisaatu min alqawlu la sobe ci wax dana ñeel ca la sobe ci nit ñu nit nit ña walxabisuuna ña nga xam ne ñooy sobewu ci nit ña lil xabisaat ñooy ñeel la nga xam ne moo sobewu ca wax yu bon ya wa tayibaatu kaddu yu teey ya li tayyibiin dana ñeel ña teey ca góor ña waaye wa tayyibuun ña nga xam ni dañoo teey ca góor ña li tayyibaat da leen di ñeel rek kàddu yu teey ya ulaa'ika mubarra'uuna mimma yaquluun ñu mel nii day ñoom day muccal nañu leen ca la nit ñi di nit ñi di wax lahum maxfiratun dana leen ñeel njéggal wa risqun karim ak wërsëg wu tedd yaa ayuha allazina amanu ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm laa tadxulu buyutan xayra buyutikum ba leen dugg mukk ci kër gu bokkul ak seeni kër xatta tastanisu lu dul ngeen yëglu wa tusallimu ala ahliha ngeen nuyoo ca waa kër ga dalikum xayrun lakum loolu nekk na yiw ñeel leen laallakum tazakkaruun ngir ngeen mën a doon ñuy fàttaliku mi ngi noonu mbokk sunu boroom day wax ni koo xam ne danga fekk soxna soo xam ne dafa bokk minal muhsanaat waxoon nañ leen démb ne muhsanaat dana firi ñetti façon firin la muy firi fii mooy jigéen ñoo xam ne dañoo fegu na doon mas nañu am jëkkër wala mësuñu am jëkkër ñooñu nga xam ne gisoo leen ñuy cokkaas benn góor gisoo leen ñuy dem ci benn góor xaafilaat ca loolu it jukko bu tedd la ci jigéen donte ne société yu mel ne Sénégal mën naa am boo ko fi def ñu jàpp ne da ngaa rëy wala da ngaa kasa da ngay gis ay góor yoo xam ne ak jigéen boo leen fekkee xattaa ci mbedd mi xaqataay diw na nga def nangam nangam ala su soxna sa ku ne ree xaqataay jàkkaarloo wallahi loo xam ni duñ ko defal sax seen frère ak seen i jëkkër ñu jàpp ne loolu ak mbaax la mbokk wallahi loolu du mbaax loolu ak ceddo la loolu ak ceddo la waaye jigéenu jaambur jurit lan la seq ak góoru jaambur asalaamaaleykum wa rahmatullah wa aleykum salaam wa rahmatullah ñu am loo xam ne farata la bu ñuy dox ñu wax ko jaay ma jël nga jënd nangam problème sangam ngeen wax ko mu jeex moo tax sunu borom ne soxna yenent bi fala taxda'na bil qawl fa yatma alladi fi qalbihi marad su ngeen di wax ak góoru jàmbur na ngeen xool ni ngeen di waxe bu leen lompañal seen wax ni ñu noonu ndax góor gi nga xam ne xolam feebar da caa nekk loolu mën na ko yóbbu mu xemmem jëm seen kaw kon ay alxaafilaat sàggan nañ yeneen góor yépp sunu borom mu ne boole caag ñu gëm ñu mel nii day ku leen duural ak njaaloo yaa ngi ànd ak rëbbum yàlla àdduna ak alaxira ci mbugal mu tar mi ngi lay xaar moo tax yonent bi alei salaam daan wax ne moytu leen juróom-ñaari bàkkaar yoo xam ne day alak nit ki te mooy lan mën nga koo def yàlla mere la ci xañ la ak tuub bàkkaar yooyu bokk na ca xasfu almuhsanaat alxaafilaat almuminaat nga fekk jigéen bu sell jigéen bu amul benn caaxaan nga xëy xëy duural ko ak njaaloo loolu ci bàkkaar yi alak nit ca la bokk yal na yàlla musal ñi ci loolu borom ba ne lu ay na fi dunia wal axira sunu borom yàlla bàyyi loolu daa dina nag bis ñi ngi ñëw yàlla matalal leen seen pay ba mat sëkk ñu xam ne yàlla rek mooy dëgg ca yàlla ci dëgg rek lay àtte ad diin mooy fay alaxira ma yowmu diin bis dañuy fayee ku nekk la nga jëfoon wahum laa yuzlamuun ci dañ leen toon léegi nag sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ni alxabisaatu lil xabisin loolee niñ ko firee ci bi ñuy jàng bind bi am nañu koo firee noonu ay alxabisaatu min al qawl lil xabisin wax ju bon ci nit ku bon rek lay mën a jóge dañ ne doomu aadama bi ndab la ndab nag la ca nekk rek moo ciy tuuroo am déet da nga jël sa ndab duy ko ba mu fees ak meew tuur ko deret tuuru abadan bu tuuroo deret rek mën a tuuru kon nit ku baax wax ju baax rek la mën a wax waaye nit ku sobewu lu bon rek moo mën a génn ci moom am na ñoo xam ni lu bon rek moo mën a génn seen làmmiñ mooy alxabisaat lil xabisin am na ñu ko firee it ne alxabisaat mooy jigéen ñu bon ña lil xabisin góor ñu bon ña la la ñuy àndal mi ngi noonu wal xabisuun góor ñu bon ña lil xabisaat jigéen ñi bon ñu rekkee nangoo seeg ñoom te mbokk mi ngi noonu mbokk mi ngi noonu wallahi bépp jigéen boo xam ni njaalookat nga ku bon nga ba siiw jullit bu diineem ñor ay milliards du tax muy ñëw di seeg yow abadan waaye góor gu bon njaalookat bu siiw jigéen bu baax bu fegu fonk diineem ay milliards du tax ma nangoo seeg yow abadan alxabisaatu lilxabisin ñu sobe nañ ànd rek ak ñu sobe doonte ne ne borom xam-xam yi ko firee ne mooy dafa ëmb lépp loolu mooy lay dëgg mbokk lépp lu bon wax la sëy la jëf la comportement la colin la lépp lu bon rek ñu bon ña la ñeel waaye ñu baax ni lu baax la ñuy tànn ci seeni soxna lu baax la ñuy tànn ci seeni wax lu baax la ñuy tànn fa ñuy dem lu baax la ñuy tànn la ñuy sol lu baax la ñuy tànn ci lépp ay alxabisaatu lil xabisin wal xabisuna lil xabisaat dafay ëmb mboolem dundu doomu aadama naka noonu leen at tayibaatu lil tayibin wax ju baax ji day ñeel ñu baax ñu soxna yu baax yi day ñeel ñu baax ñu ah comportement yu baax ñi day ñeel ñu baax ñu ah dem fu baax day ñeel ñu baax ila axiri loolu luñ ciy déggee mbokk julit mooy soxna yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem ci àll di njaaloo wallahi loolu yàlla du ko def abadan am déet lu tax ak tayibaatu li tayibin lu tax kenn ci buri wattawtuma ko na doon abdul malik la wala kenn ci ñoom mas na dégg benn chia di wax ci yaay aycha lu bon da koo jàpparee ko gars yi nu ko ah yaa amir moom li muy wax dafa yeewoon ñu duma ko mu ne ba ko waxoon ci keneen dama koy duma mais soxna yonent bi mu wax yonent bi lu tuumaal wax sunu borom moo ne alxabisaatu lil xabisin kon bu ne soxna yonent bi dafa sobe dana yonent bi dafa sobe loolu tax ma rey ko gis ngeen loolu di mbir boo xam ne dañ ci war a bàyyi xel muy wane it ne yow it jullit war ngaa xool heure bu la yàlla nattoo nga am jabar ju bon xamoo ko woon jéem ko changé mën loo ko changé teqalikool ak moom mooy la gën jéem nga ko changé mën loo ko changé teqalikool moom ak lu gën bala mu laa dugal ci mbaram googu dugal nga ci ab sëy yow jigéen ka nga doon séel xamoo ko gannaaw ba nga gis ni moom kat ah nit ku bon la wallahi benn taximan nettali na ma mu ne ma dafa yëpp benn jigéen jigéen bi toog rek mu jëmi jooy mu ne ko lan la mu ne ko yàlla daf ma nattoo problème boo xam ne xawma nu ma koy waxe ci àdduna mu ne ko mais lan la mu ne moom dafa bett jëkkëram ak faram bu góor ca la nga xam ne mooy kër ga léegi nag jëkkër bi ne ko nag man lii mooy sama dund soo bëggee nga nekk man soo bëggul yaa xam ca nee na am naa moom njaboot ba pare léegi lii lu ma koy waxee moom moomu def problème mbokk da ngay gis ne lu mel noonu masalan yow jigéen a jullit ndax góor gu solo yooyu da ngay ànd ak moom ci sëy abadan da ngay tas ak moom da ngay tas ak moom su ko defee kon heure boo xamee ne nii yaa ngi dugg ci loo xam ne yow xamoo ko nga dem ba ci biir sa njël benn mbir moo jéemal soppi la man mais gis na ne soppeekuwul njaaloo la dëkk gu dégg bëccëg nan sàngara la dëkk gu dégg bëccëg lekk riba la dëkk gu dégg bëccëg ku mel noonu loo man ci génn ci sëy bu mel noonu génn ca moom la borom bi di wax ci mushrikaat yi wala tankihu lmushrikaati xata yumin na wala tankihu lmushrikina xata yuminu la ko yàlla tëje mooy lan ulaaka yaduuna ila nnar ñun dañu woote jëme ci sawara ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax nekk ak sa jëkkër mu ne la man duma woor danga may toggal añ par force ndax sëy boobu nag ci continuer laa ulaika yaduuna ila naar boo ko toggalee añ muy añ loolee yaa ngi koy dimbali ci lu bon kon ci gàttal ak tayibaatu lil tayibin wal xabisaatu lil xabisin sunu borom yàlla nag subhanahu wa taala mu ne ak tayibaat yooyu nga xam ne Aïcha ca la bokk wa tayibuun yooyu nga xam ne safwaan min jinne moo doon def mbir mi ca la bokk ulaika mubarrauna bi ma yaquluun te mbokk ñu ne safwaan bi mu yégee wax ji dégg ñu ne Hassan ibnu Saabit moo koy wax daa bocc jaaseem riir jëm ci moom ñu wax ko mu ne wallahi ba ko yàlla bindee ba tey musul tim jigéen ndekkate radiyallahu anhu yàlla da koo nattu moom sax mënut a ànd ak jigéen ba nim faatu takkul jabar ba nim faatu amul doom mi ngi dee jiwaat fi sabilillah la la dee muy safaan biñ doon dóoral yaa Aïcha loolu di beneen preuve bu yàlla wane ne yàlla dafa bëggoon a yar julit ñi moo tax mu boole koo koo xam ne sëy sax mënu ko du dikkal sax góor du dikkal sax jigéen wala yas billah dégg nga su ko defee loolu di mbir boo xam ne dañ ci war a bàyyi xel moo tax suñu borom ni ulaika mubarrauna mimma yaqulun bal ñu mel noonu kay muy Aïcha ak Safwan ak famille ba mu wàcc di yonente beeki famille ak Aboubacar ak famille lahum maghfiratun wa rizqun karim dana leen ñeel njéggal ci wax ju bon yi ñu teg seen deret ca defuñu ko ak wërsëg wu tedd ca may aljana bi nga xam ne du jeex ba faw loolu mbokk la suñu borom wax ci loolu suñu borom nag daal di dellu siwaat ci ay mesure yu mu indi ngir lii mu wax bañ a bareeti bañ a amate ci société bi li mu wax mooy lan benn njaaloo kenn bañ fee njaalooti waaye dóoral njaaloo kenn bañ fee kenn dóoral njaaloo looloo tax mu ne ay yéen jullit ñi bu leen dugg kër bu dul seen kër lu dul ngeen yëglu na am mbokk jullit soo ñëwee ci kër rek ubbi bunt bi dugg man ngaa gis loo xam ne bëgguñu nga gis ko am déet ñëw ci néegu jàmbur ubbi dugg mas ngaa man ngaa gis loo xam ne ak njaaloo am na fa ñu ngi noonu loolu moo tax suñu borom yàlla ne ah loolu bu leen koy def dee leen yéeglu te dee leen fëgg loolu it rek la ngi gis suñuy aada benn waaye day ñëw koŋ koŋ koŋ na ngeen fanaan ni féq bunt bi kon lu jaroon ngay fëgg doye ah lu jaroon ngay fëgg suñu borom ñu ne yéeglu leen da ngay ñëw nga ne koŋ koŋ nànk ñu ngi noonu bañ a déranger waa kër gi rëng rëng rëng kenn du ko def yi ngi noonu am histoire boo amoon fii yàggul dara rek jour élection yi gars yi ñëw di fëgg fi école bi rëng rëng rëng rëng rëng ba mu jur fa histoire xaw ma ndax sa sëñ bi mi ngi ci jàkka ji mu dégg waaye sahabatul kiram dañ naan buñ daan dem di fëgg seen wee lañ daan fëggee koŋ koŋ koŋ koŋ waa kër gi parce que mën nga ñëw fekk nit ñi nelaw mais boo ne këŋ këŋ da nga leen di yee am déet or que buñ nelawul boo laalee bunt bi koŋ koŋ koŋ nang daal ñu mën a dégg su ko defee dañ daan fëgg ak seen benn baaraam ni koŋ koŋ koŋ loolu yéeglu boo yéegloo ñu ne kokkan la su ko defee it doone mana jaabir ibn abdullah ba mu ñëwee ko yonente bi kënkëng yonente bi ne kokkan la mu ne mana yonente bi ne ko mana mana mana mana dégg nga mu ne ko man la jaabir ibn abdullah gis ngeen ala kulli xaal ñu ne mana ñu xam kon kan mooy ñëw ci kër gi man koo waajal man koo préparé su ko defee sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne gannaaw yi bu ngeen duggee ngeen nuyoonte ngeen nuyoo ci seen biir ca loolu it mooy nuyoo ba jóge ci yàlla subhanahu wa taala mooy asalaamu aleykum ñu moytu di nuyoo njaay sekk jóob kese loolu mën na ñëw après asalaamu aleykum waaye ay jurit bi ñuy nuyoo mooy asalaamu aleykum wa rahmatullah mi ngi noonu ñeneen ñi fay la borom bi subhanahu wa taala nag ne zalikum xayrun lakum lii de moo gën ñeen leen laallakum tazakkarun ngir ngeen fàttaliku ca mbokk su dee ne bàyyiwoo dem kër jàmbur rek fëgg rek dugg wala ñëw rek dugg bis da nga ma sa am gàcce ñoom ñu am gàcce am déet ndax da nga leen fekk position bëggoo leen fa wala fekk ñoom it bëgguñu woon loolu ñaareel bi moo dina ne doomu aadama bi sunu borom lim ne tas na tas tax nisu mu ne dafay jóge arab bi mi ngi jóge ci ins mooy ngir ngeen nite wane na kon bàyyi ma rek moo ñëw puus rek dugg bàyyi may def loolu waaye nit du def loolu abadan nit doo dugg sa kër mbokk wala sa néegu mbokk lu dul ne yégal nga na ko yow yaay dugg si loolu di mbir boo xam ne dañ cee war a bàyyi xel mi ngi noonu borom bi nee na loolu moo gën ñeel leen
فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون
sunu borom subhanahu wa taala mu ne fa in lam tajidu fiha ahada su dee fekku leen ca kër ga kenn fala tadxuluha bu leen fa dugg xatta yu'zana lakum ba baa ñu leen di jox ndigal ci ngeen dugg wa in qiila lakum irji'u farji'u su dee ne dañu leen ne dellu leen ngalawaay dellu leen huwa azka lakum loolu moo gën a sell ñeel leen wallahu bima taamaluuna alim te seen borom yàlla day li ngeen di jëf ko ko xam la laysa alaykum junahun an tadxulu buyutan gayra maskuna ñeelu leen benn ngant ci ngeen di dugg ci kër yoo xam ne kenn dëkkewu fa fiiha mataaun lakum mu ñeel leen fa la nga xam ne ay bagaas la ñeel leen wallahu yaalamu ma tubduuna wa ma taktumuun seen borom yàlla xam ne li ngeen di feeñal ak li ngeen di nëbb yépp qul lil muminina yaruddu min absarihim waxal julit ñi nañuy sajji lenn ci seen i gis wa yaxfazu furujahum cañ wattu seen i pay dalika azka lahum loolu de moo gën a sell ñeel leen inna allaha xabirum bi ma yasnaun sa borom yàlla day ku ñàkk kumpala ci la ñuy jëf mi ngi noonu mbokk sunu borom nee na ñëw nga ci kër gi bi nga ñëwee fëgg fëgg kenn wuyuwu la nga xam ne kenn nekk fi ngalawaay bul dugg ci kër jàmbur ca kenn nekku fa ba baa ñu leen di jox ndigal loolu mbokk dañ ciy gise ni kër gu kenn nekkul yow nga ñëw dugg fa génn ëllëg lu fa manqué ndax duñ ne diw fi duggoon aha kay bari na ñoo xam ne jàpp nañ leen ci crime dañoo ñëw ci kër dugg fa bi ñuy génn ñu jàpp leen parce que dafa am koo xam ne ku ñu rey ci kër gi la te moom moo fa génne looloo tax kër heure boo xamee ne ñëw nga fekkoo fa kenn mooy bul fa dugg abadan ba baa ñu lay jox ndigal léegi nag suñ la la waxee dellu leen suñu borom mu ne dellu leen loolu moo gën ñel leen loolu mbokk da ngay gis ne société bu mel ne Sénégal moom loolu xa xamuñu ko soo demee sa seet sa kër mbokk mu ne la diw dellul ba beneen tey mënu ma laa recevoir nga ne ko waxuma xanaa laaxira nga may recevoir waaye adduna kay moom jeex na xanaa laaxira mi ngi noonu te mbokk loolu aaya alquran la kon léegi lan moo ci des moo dina da nga koy bañ a wuyu ca loolu mbokk julli dañ ko war a xam heure boo ñëwee kër jàmbur këng-këng asalaamaaleykum toogaat tuuti këng-këng waxuma la rëm-rëm de kok-kok asalaamaaleykum kenn wuyuwul waaw bu sonnerie amee kooku moom moo la jox ndigal na la soneel la ngay sone kooku moom du sa problème problème am la bon nga def ko ñetti yoon kenn wuyuwul da ngaa war a dem da ngaa war a dem abu musa al ashari ñëw na kër amar ibn xattaab daa di comme que ñetti yoon kenn wuyuwu ko mu dem bi muy dem fekk na omar parent li mu doon def ñu ubbi fekk dem na ba Omar ñëwee fekk ko ci pénc ma ne ko waa yow yaa ngi ñëw kër ga fëgg ba ma ñëw di lu ibbil fekk dem nga mu ne yonent bi alayhi salaam moo ne boo fëggee kër jàmbur ñetti yoon kenn wuyuwul na nga dem mu ne ko fan la ko yonent bi waxe gaa yi mu toggaloon gaa yi mu toggaloon ñëpp ne ah Omar ah loolu ko yonent bi ko digle Omar jël yat ba mu doon yor fëggu ko boppam ne ciy Omar topp marché bi tax na ba lu bëri réer la ci sunna gis ngeen kon ñun mbokk juri lool la moo dina ne kër jàmbur soo demee boo fëggee am nañ droit ne pat bu dee ñetti yoon nga la waay wàññeekul dem parce que boo insisté mën nam ñi ngi malade bëgguñu nga fekk leen ak seen malade xaal boobu mën nam ñi ngi reer la ñuy reere bëgguñu woon nga xam ko ah mën na am ñi ngi ci yeneen ak yeneen ala kulli xaal du dagan ci yow ngay insisté di dugg fëgg nga ñetti yoon wayu wuñu demal sa yoon loolee la sunu borom subhanahu wa taala wax amma bu dee ne nag da ñëpp xamoon sunna da nga naan ko kooku diw mun naa wax nga ne ko waaye demal ba beneen waaye damaa jàpp tey gis ngeen lenn ci sahaaba daa nañu wax ne wala boog lenn ci ay borom xam-xam daa nañu wax ne aaya bi sàkku naa ko ñeen fukki at yàlla musuma koo nattoo ñeen fukki at ba moo ko xamee ba tey yàlla musuma nattoo maa ngi bëgg rek dem kër jàmbur fëgg bañ ne ma dellu ba ma dellu ngir jëfe ko mi ngi noonu kon it loolu mbokk da ngay gis ne malheureusement ñun suñu société ñi ko fi def mooy tubaab yi mooy tubaab yi mën naa la wax diw benn waay bu ma xam lool daa dafa am nijaay ju tubaab lool ñu ngi dëkk almeti dafa ànd ak ay yenn mbokkam ñu dem biñ demee ci gardien bi wax ne diw lañ soxla woon mu daal di koy jox note na ko dem leen ne leen ëmm mënu ma leen recevoir nañ dem nibbi ñu ne alaxiri la ñuy teg ak tànk seen kër jeex na waaw loolu intellectuel intellectuel ñoo koy def doonte ne ñoom la leen ci yóbbee islam taxul ak tubaab bi mooy leen ci yóbbee waaye yow julit xamal ne sa borom yàlla moo dogal loolu nangu ko rek ci yàlla tax léegi nag am na ci kër yoo xam ne moom aajowul ah dañ koo ubbi pour ñëpp mooy magasin yi magasin yeeg supermarché yeeg hôpital yeeg kaza wa kaza place yi nga xam ne moom dañ koo def pour ñëpp su boobaa moom jarul ngay ñëw di fëgg déedéet boo ñëwee rek dugal parce que suñu borom mu ne fiiha mataaun lakum mi ngi noonu boo ñëwee rek da ngay gis bunt yu bëri sax naan poussé entré am déet mi ngi noonu parce que moom dañ ko def pour ñëpp kon jarul ngay taxaw ci buntu ba bitu buntu alimentation bi naan tën tën tën tën déedéet boo ko defee dañaan xiif ba xanaa mbaakol la jógee gis ngeen da ngay ñëw rek ah pousse daal di dugg borom bi subhanahu wa taala nag ne yàlla moo gën a xam li ngeen di nëbb ak li ngeen di feeñal mbokk nañu xam ne it fëgg bi bi ko lislaam di wax mooy bañ nga gis ci kër gi loo wurte gis looloo tax bokk na ci lu xaraam di romb kër nit di xool ci fenêtre bi wala di yiirundu ñu ngi noonu yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam benn waaye ñëw na dugg ci néegam bi mu ko joxee ndigal ba pare mu ñëw mu ne ko ah man kay bi mu ñëw dama laa yirundu gis na yaa ngi fi toog mu ne su ma xamoon yaa ngi mu yirundu naa foq sa bët bi yaa ngi dégg borom xam-xam yi dañ naan nit ki ñëw sa néeg di la yirundu nga gis ko boo foqee bëtam ba ngeen demee ci àttekat bi day perte nga demee àttekat bi day perte su ko defee heure boo fëggee kër nit même bu bunti bi xawee ubbeeku da ngay petu waaye doo fëgg jàkkaarloog ñoom maadaama yaa ngi xool ci kër gi jaratul ngay fëgg yépp ay teggin la kon mbokk ngir njaaloo bañ a am bu ñu dugg kër jaambur ci yëgle wuñu beneen mesure bi tax njaaloo bañ a am ca mooy mesure yi ba ci gën a màgg sunu borom yàlla ne yow yonent bi qul lil muminina yahuddu min absarihim waxal jullit ñi nañuy sajji lenn ci seen gis borom bi waxul rek yahuddu absaarahum ndax bu doon looloo jullit day tëj ay bëtam rek abadan waaye min absaarihim ca mooy am na lu araama xool bu leen ko xool mi ngi noonu am na lu araama xool bu leen ko xool waaye jullit war ne xool kaw asamaan di yéemu di jàng di xool ci ila axiri amma lu xaraam bu leen ko xool borom bi mu ne it yaxfazu furujahum waxul min furujihim waaye furujahum nañu waxtu seen i pay lu tax li nga xam ne moom mooy alfarj dañ koo war a wattu ci lépp da nga war a wattu sa fay kenn du ko gis bokk na lu xaraama xaraam nga génn say yaramu say sa sa awra kanamu nit ñi ñu koy gis xataa sa kanamu bàyyi xataa sa kanamu yaay wala sa kanamu doom maadaama majeur nga sa jabar da nga am droit gis sa awra wala sa jëkkër gannaaw ba da nga koo war a wattu ci kenn amul droit di ko laal lu dul ci loo xamee ni nii lor extrême la xattaa kii sangu néew sax dafay am lu muy lumus ci loxoom pour mën a laal awra ki nga xam ne dafa faatu am maa nag lan ko gën a mën a wattoo mooy wàllu njaaloo lu dul ci sa soxna wala sa jàmba nga moom comme na ko borom bi waxe suratu muminuun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ak ci suratul maarij loolu kon mbokk dañ cee war a wattu suñuy pay muy ñaar yu lënkaloo muy bët ak la nga xam ne mooy pay awra doomu aadama lay toog di seetaan seen porno yu xaraam yooyu ba gis na awra ba génn ne loo tax loo xam ne bu fa jógee day sangu ji te bët yi rek moo réagir seetaan bi rek mën na ko yóbbe loolu loolu nag dafa lënkaloo moo tax suñu borom ne yow jullit heure boo ne jàkk jigéen boo xam ne jigéen bu xaraam la sajjal sa gis yow góor sajjal jigéen nit bul nekk di xool góoru jaamur xooloo bànneex heure boo gisee awra sa jël sa gis ila axiri loolu mooy tax ngeen mën a fay ngeen mën a fekk la nga xamee ne nii moom mooy seeni pay borom bi subhanahu wa taala mu ne zalika azka lahum loolu moo gën a sell te it mbokk julit say bët mën nga cee def loo xam ne ñi nga toogal xamuñu ko am déet te mën ngaa nekk kër jaamur ah dégg nga comme yéen a ngi waxtaan fekk sa bët yëpp mi ngi ci ndaw si am déet fekk waa ji moom xamu ci dara fekk waa ji xamu ci dara moo tax sunu borom yàlla mu ne wallahu xabirun yàlla moom ñàkk na kumpa ci li ngeen di def loolu kon ku ne mën nga koo nax waaye sunu borom mu ne yaalamu xaainata al ayun wa ma tuxfi sudur kay war ci ay bëtam yàlla xam na ko ka nëbb ci xolam it yàlla xam na ko loolu it mbokk pexe ba gën a màgg ci wattu sa pay xamal mooy lan fexeel wattu say bët bañ a xool loo xam ne lu xaram la waaye maadaama buñ ne nuyu jigéen gars yi ne waa ñi dañoo ëppal ki nga xam ne nuyu jigéen jàpp ci loxo bi na ngeen def wi ñaar lu pour moom du dara booy wax ak moom xool ko dafa xaram lu mu lay wax dañ naan ñi dañoo ëppal waaye mbokk lii du ay xadis dañ naan wér naag wérul aayat alxuraan la bu sunu borom wax ñu am déet loolu di mbir boo xam ne nañ ci bàyyi xel bu baax naam ala kulli xaal
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يردين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
sunu borom subhanahu wa taala mu ne waqul lilmuminaati yagdudna min absaarihinna waxalit jigéeni julit ñi nañuy sajji ci seen gis ya wa yaxfazna furujahunna ca ñu wattu la nga xam ne mooy seen pay ya seen awra ya wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha bu ñu feeñal ci seen taar ba lu dul la nga xam ne da caa feeñ mooy lu ca mënuta nëbbu ma zahara minha wal yadribna bi xumurihinna ala juyubihinna nañuy dóor ca seen musur yi ñuy muuroo nañ ko dóor ca seen baatu mbubb ya xar-xaru baatu mbubb ba mu muur seen loos ya wala yubdina zinatahunna bu ñu feeñal seen taar illa li buulatihinna lu dul seen jëkkër ya aw aabaihinna wala seen baay ya aw aabaai buulatihinna wala seen baayu jëkkër ya aw abnaihinna wala seen doom ya aw abnaai buulatihinna wala seen doomi jëkkër ya aw ixwaanihinna wala seen ña nga xam ne dañoo bokk ak ñoom ndey wala baay wala ñu bokk ndey ak baay ca góor ña aw bani ixwaanihinna wala doomu ñooñu ñu wax aw bani axawaatihinna wala seen doomu sër ya na doon dañoo bokk ndey wala baay wala ndey ak baay aw nisaihinna wala seeni jigéen muy jigéen ne ñoom am na ñu ko firi it wala jigéeni julit ña aw ma malakat aymanuhunna ak ñi nga xam ne moom na ko seeni ndeyjoor muy seeni jaam ci jaamu sharia aw taabiina gayri ulil irbati min arrijal wala boog ña nga xam ne dañuy toppe ca bokkuñu ci ñi am kattan ca góor ña mooy góor ñi nga xam ne mënuñoo dikkal jigéen ñi ngi noonu ay tifli lazina lam yazharu ala awrati nisa ak it xale yi nga xam ne ñoom notaguñu ay mënuñoo dikkal jigéen notaguñu ca la nga xam ne awra jigéen mooy xamuñu ko ca amuñu ca benn kattan wala yadribna bi arjulihinna bu ñuy dóor ci seen tànk ya li yolama ngir ñi mën a xame maa yuux fii ne la nga xam ne nëbb nañ ko min zinatihinna ca la nga xamee ne dafa nekk ci seen taar ba wa tuubu ila llahi jamia na ngeen tuub jëm ci yàlla mboole seen ayuha almuminuun yéen ñi nga xam ne ay julit ngeen laallakum tuflixuun ngiree ngeen texe moo ko aayaa ngi ni boo xam ni suñ ko jëfe woon société bi laab société bi baax li jëkk mooy yéen jigéen ñi li ñu sant góor ñi lañ leen sant na ngeen di sajj seen gis bu leen nekk di xool góori jaambur xoolu bànneex moo ana jigéen ña nekk ca làmb ja ponkal moo xam ni guddeeg bëccëg liggéeyam mooy entraîner ak lekk yàpp ak naan fonde ba ñu dull dullaaral ñëw sa kanam di bàkku ah mi ngi noonu ku ci yàlla nattoo say jabar ak say doomi jigéen di sitaan mbër yi dañ leen a nob de lu raw nañu leen nobee na ngeen ci bàyyi xel léegi ngeen loolu ñu ñëw ana ñay seetaan théâtre ya ana ñu nekk ci film ya sunu borom dana woon saddi leen seen gis yéen jigéeni julit ñi bu leen nekk di xool góori jaambur yi xoolu bànneex loolu ca ngeen di mën a wattoo la nga xam ne mooy seeni pay mi ngi noonu yaxfazna furujahunna sunu borom yàlla loolu nga gis mu wax mbokk ni yàlla araamale ñiy xool en direct jëmm noonu la ko araamale ci nataal xam ngeen photo yàgg fi télévision yàgg fi caméra yàgg fi mais yonent bi alayhi salaam daana wax yéen jigéen ñi bu kenn dem ci jëkkëram di ko melal ka nga xam ne mooy jigéenu jàmbur mel ni mi ngi koy gis ca del déglu jataayu jigéen da nga dégg sii diw ni mu jekke léegi de boo ko gisee nangam nangam na mu xeeseeg du melal ko dañuy metal melal ba mel ne yaa ngi koy gis looloo xewoon waa léegi nag xoolal tey photo xoolal tey film xoolal tey nangam su ko defee loolu du dagan ngay xool ay photo di ci bànneexu wala di xool ay film di ci bànneexu loolu góor laak jigéen ngal la waaye lu mu siiw siiw taxul du dagan abadan da ngeen bàyyi xel loolu bu baax nañuy wattu seeni bët te wattu seeni pay la nga xam ne mooy la ñuy taaroo la jigéen di taaroo lañ ci xamoon démb jaaro yi ñuy takk ca nopp ya chaîne yi ñuy takk ca baat ya la nga xam ne dañ koy takk ca loxo ya sunu borom mu ne bu ñu génne seen taar lu dul la nga xam ne moo ca feeñ illa ma zahara minha borom xam-xam ya am ci nañ ci tuuti wuute benn bu doon te ne ay arabi saudi def yooyu ñoom dañ ne jigéen lépp mu war a nëbbu illa ma zahara minha mooy lan mooy loo xam ne ngelaw li moo ko génn ci yaramam wala boog yére ba muy sol doonte ne am na ñeneen ñi it lañ ko firee mooy mooy xar kanam gi ak tibi loxoom loolu la am droit génne ñu ngi nuur illa ma zahara minha borom bi mu ne nañuy muur seen baatu mbubu ndax comme bopp gën a rëy baat heure booy sol mbubu kon baatu bi day génne sa baat génne sa kaw dënn mu ne nañ ko muur loolu yadribna bi xumurihinna ala jubihinna la nga xam ne moom la ñuy taaroo mu ne ngalawaay bu mu ko gis lu dul liste bii ma bëgg a wax ca loolu dañ naan la jigéen ñi doon taaroo jamono yonent bi alayhi salaam daanañ takk ci seen loxo am na lu ñu naan takk seen gannaaw conco looloo tax ñu ne jigéen lan la góor ñi yàlla bëgg a wax mën a gis ci moom mooy digg loxoom nii ci kaw fii nekk ci kaw conco bi digg loxoom nii jëm suuf gannaaw ba buñ mësaan takk caq fa muy tege mooy fi ween yi di saxe ci kaw ween yi mais xatta say ween sa baay sa frère amul droit gis ko mais dënn bi ni ci kaw ak bopp bi jëm kaw am nañ droit gis ko bu dee suñ mag ñee nag da ngay gis ndeysaan jigéen di waddu bàyyi biir baag weene yépp waaye mu musóoru ndax dañ leen di wax ne boo dindee sa musóor malaaka yi dañuy dee loolu suñ maam yi ñu ko tiitale woon pour bëgg rek ñuy musóoru loolu mbokk loolu amut ala kulli xaal am nañ droit gis loolu la yàlla di mujj wax fin aaya ba mooy bu ñuy dóor ngeen ñu xam seen tànk yee lañ ca takk ci seen lam yooyu naar yi di takk kon ñu ne digg yeel bi jëm suuf list bi am nañ droit gis ko list boobu ngal la waay buñ ci dugal ku ci yàlla boolewul borom bi nee na mooy ñan sa baay la wala sa doomi baay waa ji même bu dee ne bokku leen ndey waaye sa baayu ko jur ku mel noonu am na droit gis ci loolu ñuy wax wala boog sa frère wala sa sœur wala seeni doom muy seeni jarbaat ñii ñoom am nañ droit gis ci yow takkaay yooyu ñu wax gannaaw ba yitta ñi nga xam ne say jaam lañu ba jaamu sharia di am gannaaw ba ñi nga xam ne ñépp xam nañ ci société bi ne ñoom dañoo doon ñoo xam ne mënuñoo dikkal góo mënuñoo dikkal jigéen mbokk ya- yàlla nee na yeneen sax bi wax seytaan seytaan la ci sànni moo tax muy wax seytaan la ci sànni mooy mënuñoo dikkal jigéen waaye góor du dikkal góor lu dul musiba naaru lay mi ngi noonu ala kulli xaal sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne lu dul góor ñu mel noonu loolu lu muy firee même ñooñu jigéen wóorul leen a woon yaramam yépp ndax mënuñoo dikkal jigéen waaye mën nañoo dem nettali ñeneen nan la jigéen ñi mel yonent bi alayhi salaam kenn ci ñooñu daana ñëw këram bis la ko yonent bi bett rek muy wax benn jigéen ci koñ bi chee diw kooku ni ma taaroo bu la wanee kanam ni la ñuy def bu la wanee gannaaw kaza wa kaza yonent bi ne gis na ko tey kii bu mu ko gisati seen biir gis ngeen te ñëpp xamoon nañu mun mënul dikkal jigéen borom bi subhanahu wa taala teg ci aw nisaihinna borom xam-xam yi am na ñu ko firee ni seeni jigéen ay jigéen mën na gis sa frère li muy gis yow jigéen ñépp mën nañ ko gis am na it ñu ko tënk ne déedéet nisaihinna mooy jigéeni jullit ñi kon xatta jigéenu chrétien jigéen dafa war a muuru ci kanamam loolu moom ixtilaaf la borom bi subhanahu wa taala it ne xale yi nga xam ne it amaguñu kàttan ci dikkal jigéen moo di ne ni ay xale yu ndaw lañu xamuñu lu bari ci jigéen suñ mag ñi dañ naan xamagul jigéen mooy xale bu ndaw la firiwul ne majeuragul xale mën na bañ a majeur ca mën a dikkal jigéen mais xale yooyu nga xam ne à peine ñu ngi jëm maximum ay dix ans loolee di ngay gis ne gu jigéen mën na feeñu la muy woon ay baayam ak frère am ñooñu garaawul pour ñu gis ko borom bi mu ne bu ñu dóor seen tànk ngir ñu xam la ñu nëbb mooy dañ daan takk ay lam yéen ñi dëkk ak naar yi waaw téqal ma comme sunu mbokk mbokk mi ni mu ko waxee sunu mag ñi dañ ko daan takk doonte ne jigéen ñi tey xeewel nañ ko naar yi ñoom ñu ngi ko def ba tey ay lami li ñu lami tànk loolu mu lay woon ne tànku jigéen awara la léegi nag jigéen ñu xaw a doy waar yi dañu daan muuru comme ñëpp bu ñëwee ba egg ci ay góor dóor seen tànk la mu ne keleng keleng loolu pour attirer góor ñi ci ñoom sunu borom mu ne buñ def loolu ngiree di xamle la nga xam ne nëbb nañ ko ci ay takkaay yi waaye mbokk aay bi ku koy jàng ci sunu société bi jooy da lay jàpp bu dee ne tëgg ay lam pour attirer nit ñi la yàlla araamal xoolal suñu jigéen yi nga xam ne dañuy takk ay fer bu ñu dox mu naan keseng keseng gars yi lañ takk ci yéel ak lañ takk ci ndigg lan mu ci gën a garaaw am na lu gënoon a garaaw loo xam ne nii sax xëy na jigéen yi bàyyi nañ ko léegi li ñu daan tuddee ay jal jalil dañ ko daan jël takk ñoom ci kaw sër bi far benn yoon loolee mbokk di musiba yoo xamee ne nii doomu aadama loo yàgg gis rek day mujj dem daal di normal ci yow gis ngeen loo yàgg gis day daal di dem normal ci yow loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax sunu borom yàlla nag aaya yii bi mu ko waxee ba pare mu ne ngalawaay tuub leen ah tuub leen ngeen jëm ci seen boroom yéen jullit ñi su ngeen bëggee texe ca loolu itamit muy wane ne tuub farata la ci kan ci mboole mi jullit loo baax baax da ngaa war di tuub moo tax yonente bi alayhi salaam ne ay yéen nit ñi tuub leen man de dinaa tuub jëm ci yàlla lu ëpp juróom ñaar fukki yoon bés bu nekk waaye tuub boobu it ba ci gën a mag mooy lan mooy lii yàlla tere benn njaaloo gi duural gi ñàkk muuru gi nañ ko bàyyi xel même li mu mujj a wax mooy yëre yi boobu mbokk julit yëre yu gàtt yi ba mu fi xewee yàggul tubaab yi seen bopp xoolal film yi daan tourné bu jëkk a jëkk jigéeni tubaab yi ngi ci daan gis yépp robb yu buubu lañ daan sol xatta seen aada bi ñu bàyyee muy robe de mariage yi ndax gis ngeen robe de mariage yi ni muy buuboo ba dañuy am ay atas yoo xam ne ñooy jàpp ci gannaaw sax tubaab bu jigéen bu ma sentir dañ naan elle a ramassé sa robe pour mu daw il faut mu wekk mbum mi ndax seen robe da daan buubu loolu it kon ñu bàyyi ci xel bu baax problème mu muuraay bi soo koy wax ñu jàpp ne lislaam a ko moom wallahi lislaam moomu ko ndax gis ngeen sëru sëru sëru catholique yi ni ñu muuroo waxuma sëru Sénégal sëru jullit ñi xaw ma ndax inspecteur Samb mi ngi fem déet mais boo demee kër Étienne ci Saint-Louis jigéen ñi sër yi dañ leen di colal col goo xam ne moo gën a jekk suñu ibaada yi ni ñu solo xool leen ko ñeen ñi gis télévision yi ngay xool ña nga xam ne lenn ci yahud yi lenn ci chrétien yi seen jigéen ñi dañuy muuru xijaab seen kanam rek ngay gis ci ñoom mi ngi noonu da ngay gis mi ngi may fàttali Ahmed Didat benn conférence bu ngeen animé ci New York salle bi fees tel jigéen ñi ñëw fa benn jigéen ñëw na ko mais yéen yéen da ngeen di tere jigéen mu am ay liberté am dégg naa l'islam da ngeen di wax jigéen ñi nañ muuru Ahmed Didat ndeysaan yàlla na ko yàlla jéggal yërëm ko góor gu mënoon a wax saf xorom mu ne leen waaw yéen assistance dama leen di laaj li l'islam digle ak seen société li muy digle seen société dafa digle mooy jigéen lu ko neex mën na solo da ngay gis benn jigéen boo xale bu jigéen boo xam ni mi ngi rafet jekk ñu ne am na droit sol bikinim génn moom màgget la woon bu xëb bi daal sax bu ne màgget bu mel ne mel sax bu ko gisee daal di teg sagoom léegi islam moom ne déedéet yow jigéen ni nga taaroo muural sa awra ba baa góor bi nga xam ne moo dagana yegsi ci yow kooku nga génn ko jox ko ko waaw gars yi li mu leen di laaj ban moo gën a jub gars yi ne wéy wéy wéy bi lislaam a gën a jub gannaaw ba mi ngi yoroon benn injil mu ne dama leen di delloo dellu leen seen injil selon saint paul saint xam nga ñun lislaam dana jigéen na muuru ñu ne waaw mu ne selon saint paul nee na jésus nee na bépp jigéen bu dul muuru dañ ko war a watnil mi ngi noonu que la femme qui ne porte pas le voile soit tondue koo xam ne jigéen la ci du muuru nañ ko watnel kan moo gën a tolérant entre l'islam et christianisme loolu kon mbokk ñu xam ni nañu moytu di dellu ci texte yi bañ a juger selon li ñuy dégg am na jullit ñu baax ñi ngi julli ñi ngi woor ñi ngi aj màkka mais bu ñu gisee jigéen bu muuru dafa mel ne seen butit la ñu gis pour lan parce que jàpp nañu bon ibaadu yu ñëw fi nar a indi lu kenn xamul comme ni mu leen yàgg a waxee lu bari wallaay fii ci mbedd jàkka ji daje naag benn jigéen bu muuru mu dajeeg moroomu jigéenam mu ne ko diw léegi ibaada ba mu ne ko yàlla tere man may dem daayira gis ngeen waaw ala kulli xaal yàlla na yàlla xamal ñu ñëpp suñu diine bëgg nañu suñu diine ku yàlla sellal rek moo sell yàlla na yàlla sellal nañu sellal ñu suñu njaboot sellal moo leen mi julit fi mashariq la ardi magharibiha wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad waaw yaakaar naa waaw waaw man day ah ba ah waaw bismillah waaw waaw li nga wax ci wàllu télévision bi tey. léegi ak xabaar waay bi ñu koy jiyee ji.
ak ko boo wutul bu fekkee boo wutul jàll léegi ñoom ñu génn dem di ko seen ak mooy ak xabaar waay.
su dee ni man su ma amul télé dañuy dem seetaan ko feneen mbokk lay boobu boo ko bëggee topp da ngay gis ne lu bare bari ci sharia da nga doon loo xam ne dañ koy jalgati yow sa borom yàlla santu la xale bi jub wala xale bu baax xam nga sa borom yàlla lu mu la sant wërsëgal na la kër yaa fi responsable wërsëgal na la njaboot yaa fi responsable léegi yow sa kent lali kàttan loolu ngay def waaye xale bu jigéen bi jàngi mën na njaaloo ca àll ba bu ko neexee xale bu góor bi mën na tuxi dorog ca àll ba bu ko neexee su ko defee kon yow la nga itteel mooy daal sa kër bi nga moom fexeel ba lu neexul yàlla dafa am karotee ko dem feneen def ko fa loolee yow sa yoon nekkul ci loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw yaakaar naa waaw waaw bismillah dañuy dem ala kulli xaal jigéen ñi xamul seen moroomu jigéen loolu mbir la boo xam ni mën nga waat ne amul sunu société bi ñaar fukki at wala fanweeri at amul sunu société bi léegi nag bi internet ñëwee multiple rajo ñëw mi ngi commencé di raam ba tey boo duggoon léegi internet rek boo bindee affaire yi lesbienne wala nangam ñu wan la jigéen ñi xale jànq ji grand yoo fag lépp wan la lépp lépp di mbir boo xam ne mi ngi tasaaroo loolee mbokk nañu xam ni ci musiba yi gën a garaaw ci musiba yi la bokk ala kulli xaal jigéeni jullit day xam ni diineem ak niti nanguwul ñaar yooyu abadan même bu ko diine araamalul woon ak nite nanguwu ko bànneex amu ci bànneex artificiel la dañ koo publicité di ci wax ba nit ki di ko def di ci am bànneex waaye wallahi bànneex amu ci mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ah
ndax kooku jigéen ñi góor la mënu ci kanam ndax nañ ko war a xool.
ah jigéen boo xam ne da- dañoo yëg ne day xemmem jigéen ndax kooku dañu war a muuru ci kanamam ah kay dañoo war a muuru ci kanamam ku mel noonu ku mel noonu kay dañoo war a muuru ci kanamam bépp jigéen bu ñu gis ne yàlla da koo nattoo muy dem di sàkk moroomu jigéenam ku mel noonu dañoo war a muuru ci kanamam wax naa leen sànq ne am na benn koo xam ne ñëpp xamoon ne mënul dikkal jigéen da daan ñëw ci kër yonente bi alayhi salaam keroog ba ko yonente bi déggee wax wax jooju leen ko bu mu duggati ci kër gi kon it bépp jigéen boo xam ne noonu la mel benn jigéen jullit war koo woon awraam mbokk waaw même bu ñu lesbienne sax mais muy jigéen ñi sàggan joo xam ne day day day mën na laa wutal farak yooyu sax.
am na ñu am na jigéen ñu ñuy tuddee day taxawal soo déggee day taxawal mooy ñoo xam ne patron yi la ñuy dem dafa am xale yu jigéen yu ñuy recruter ñoom la ñuy jël seen i numéro patron boo bëgg ñu jox la ci kenn jigéen bu mel noonu ku ko xam moo góor nga war a yemale waruloo ko won sa awra ala kulli xaal mesure yi yàlla di wax yépp muuru leen yéglu leen bu leen woon nangam lenn rek mooy jubluwaay bi mooy moytu leen njaaloo kon lépp loo xam ne da lay dugal ci njaaloo loolee islam da koo araamal moo tax islam ne jigéen bu mu tukki moom rek islam ne bu leen wéet ak jigéen islam tere jaxasoo lépp loo xam ne day jëme ci njaaloo islam da koo araamal yal na yàlla laabal ñu ci njaaloo laabal ñu ci lépp lu mu araamal ci ñun wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad